Euh, moo tax en 2015 son excellence monsieur le président de la ak ministère énergie ak ASER ñu développé lu ñu tuddee plan national d'urgence d'électrification rurale ci plan national boobu nag gouvernement di Sénégal duggal ci 7 milliards ci projet bu ñu tuddee 218 villages projet boobu moo waral suñu teewaay fii tey nga xam ne ci biir région Thiès nga xam ne mooy premier lot bi am na 52 villages yu ci nekk 52 euh, villages yooyu nag ñu tànn Fulum comme Euh, localité phare parce que si côté démographie euh, maanaam njaboot buy euh, xëy fii si Fulum village bi moo gën a rëy village yu nekk si projet bi yëpp moo tax ñu beral leen loxo te yàlla def ne électrifié électrification bi yemb na ñu ngi ñëw fii di ko inaugurer ak population yi wax rek gouvernement du Sénégal grace à la vision du président de la République mais également engagement ministère du pétrole et des énergies nga xam ne Sophie Gladima moo ko jiite actuellement ñu ngi taxaw pour. accès universel nekk réalité à l'horizon 2025 pour ñu mun a dem si accès universel boobu nag dañuy mottali lu ñu tuddee programme national d'urgence bi moo tax d'ici fin 2021 localité yëpp yi nga xam ne ñu ngi nekk si programme national d'urgence de l'éducation ASER euh, am na yum si yore PUDC am na yum si yore Sénélec am na yum si war a def yooyu yëpp suñu yéene mooy ñu mottali ko avant fin 2021 et à partir de 2022 nag ñu mettre le cap nga xam ne mooy accès universel accès universel mooy euh, fukki junni ak ñett dëkk yi nekk ci àll bi muy village yi muy amoo yi ñu yóbbu fa courant loolu nag laaj na euh, juróom-ñaari téeméeru milliards pour mobiliser juróom-ñaari téeméeru milliards yi semaine dernière gouvernement du Sénégal ci euh, jiite ministre de l'économie et des plans et de coopération mais également ministre du pétrole et des énergies réunir nañu bailleurs de fonds yi bu ñu réuniree bailleurs de fonds yi ñooñu ñu ne dinañu financer à de deux cent quarante milliards. ñu toog ñaari fan réunir communauté euh, secteur privé bi ñooñu tamit ñu ne am nañu yéene dugal ci électrification rural lu toll na junni ak ñeenti téeméeru milliards. donc euh, juróom-ñaari téeméeru milliards lu ñu doon wut tey bu ñu xaymaa lu bailleur de fonds yi dugal ak secteur privé yi am nañu lu topp mille six cent quarante milliards léegi nag mu des ñun ASER PUDC Sénélec Pima ak concessionnaire d'électrification rurale ñu taxaw ci pour. électrification ak accès universel nekk une réalité à l'horizon 2025 fii si Fulum nag euh, jox nañu instruction entreprise yi lu euh, luñ fi jotoon def euh, doyul moo tax ñu ne entreprise bi ñun sax ñoo leen defal calcul yi complété ne leen dëkk yëpp nañu teb benn poto ñaari poto yu ne na am benn bu am làmp donc loolu entreprise dina fi dellu si mottali làmp yooyu am nañu aussi suñu beneen naataango bu ñu tuddee agence nationale de euh, de promotion des énergies renouvelables muy ANER ANER mu ngi promouvoir lampadaires solaires yi parce que xam ngeen éclairage public dafa cher facture bi romb na téeméeru milliards ak ñaar fukk année bu ne moo tax gouvernement Sénégal ne ANER na développer électrification par voie solaire pare nañu premier projet cinquante mille lampadaires solaires yi ñu ngi sumb deuxième phase bi nga xam ne président yéenam mooy ñu dugal si. téeméeri junni lampadaire solaire muy cent mille lampadaire solaire loolu nag dina tax facture électricité bi wàññeeku mais également euh, ñu def lu ñu tuddee développement propre parce que environnement bi waruñ ko agresser donc bu ñu demee di utiliser solaire bi di def énergie renouvelable loolu tamit développement propre développement durable ñun am na fu ñu koy def ci dëkk yi nga xam ne sori nañu réseau électrique yi ANER tamit mu ngi taxaw pour promouvoir lampadaire solaire yi mais également AME puisque dégg nañ ci discours yi ñuy wax yaxanal électricité AME muy agence bi nga xam ne mooy toppatoo économie ak efficacité de l'énergie ñooñu tamit ñu ngi conseiller euh, industriels yi ñu ngi conseiller professionnels yi mais surtout ñu ngi conseiller ménages yi pour ñu bañ a yàq électricité électricité facteur de développement la électricité day promouvoir activité génératrice de revenu donc war nañ ko utiliser nu waree mais aussi en gardant de vue sécurité bi surtout sécurité bi. waaw fi nag euh, si commune euh, Morolan je pense que mun nañu sant yàlla ne pratiquement accès universel réalité la fi parce que fu ñu amoon euh, ñeenti localité en 2012 tey ñu ngi ci fukki localité ak juróom-benn daanaka ñaar ba ñett village ak quelques amu ñoo des pour ñu am électricité donc ñun ñu ngi ci taxaw surtout pour Colobane Thiombane mun a am électricité mais yeneen villages yi tamit ñu taxaw ci pour ñu am électricité donc accès universel fii ci euh, commune Morolan du ñu xaar 2025 mun nañu ne sax deux mille vingt deux incha allah dinañ mën a réaliser accès universel fii si commune Morolan.